pàkk boo xam ne fu mënti nekk fii un hectare yu mel noonu ñu defar ko defar ko ba mel ni garage ba nga xam ne bu nu ñuy boo oto yi ñëwee rek foofu lañ leen di ah viré rahmatullah papa eh, ñi moy groupe bi na doon ñaan digal muy regroupement safaru medina bay ñi doon ñaan digal pour ñew toog waxtaan ak yow ñu jaarale won ko ci man fan yi yëpp ñu ci doon wax man ak yow ba tay la ko yalla dogal eh, mbolo mi ëpp na li waye am na magu groupe bi eh, ki moy president bi muy asmi mom moy president bi dama leen di dalal ñoom seen si kër gi ndax dañuy wax ne nit ki fam nekk fu nekk mooy dalal ay ganam kon ma leen dalal di leen nuyu ñoom ñëpp samay mbokki safoor te di leen ñaanal yàlla ñoom tamit liñ bëgg yàlla defal leen ko si sa kàddu ñuy jox as euh, mi nga xam ne mooy président bi lépp lu ci am moom mu jàllal ko sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax ne tey say doom say soppe say xarit say ñoo ñëw fii toog ci sa kanam di la bëgg a présenter benn association boo xamante ni dañ ko formé woon fii te dara taxut ñu forme ko lu dul bokk na ci say xalaat ndax ku la xam ku ne xam ne ah, jeunesse bi bokk na ci li la ñor ba say waxtaan lu ci ëpp da ngay ñaax jeunesse bi ci liggéey di leen ñaax ci jaamu yàlla di leen ñaax ci ñu gën a lu bëgg seen bopp. loolu bokk ci li nga xamante ni moo ñu gën a motiver ba ñu créé association bi tuddee ko association de chauffeurs de Médina fii ci dëkk bi ñu ñëwoon tey dina ko présenté ak li nga xamante ni moom lañ bëgg def ci association bi mu doon association boo xamante ni it association chauffeur la mooy métier mi waaye dañoo ëlbatiku nekk di ay soldaar fii ci pays bi ba nga xamante ni lépp lu xew ci pays bi rek bëgg nañ cee nekk suñu doole bëgg nañ cee nekk ak suñuy xalaat ci biir loolu it euh, ñu ngi woon ci ansaaru diin ndax pays bi bu dee taalibi nga nekk doom ci dëkk bi li gën ba gën bokk ci soldaar yi mooy nga adhéré wu ci ansaaru diin yàlla def na adhéré woon nañ ci ansaaru diin kanaar dañ ko bëgg a gën a ñoŋalaat adhéré wu ci ansaaru diin nga xamante ni lépp loo xamante ni xew na ci dëkk bi surtout lii ñu dël man muy gàmmu gi euh, ñu man cee bokk ci liggéey boobu bokk ci ñi nga xamante ni danañ yokk taar danañ yokk set danañ yokk sécuriser ci dëkk bi ci biir sécurité boobu ci laay def tuuti waxtaan ba pare soog di jox euh, kàddu gi suñu euh, président bi nga xam ne moo yor communiqué moo yor euh, point boobu ndax am na suñuy mbokk yi chauffeur yoo xamante ni dañuy jugee à l'étranger di ñëw bu ñëwee duñu am sax foo xamante ni fa la ñuy gaare wala boog duñu xam ni ñuy gaare yenn gaare yi bu ko defee ci dëkk bi di indi ay embouteillage ak yooyu yooyu yëpp bëgg nañ ci ànd ak Ansaarud-Din di ci liggéey ak moom ba nga xamante ni dana gën a indi sécurité ci dëkk bi gën a indi sécurité ci nit ñi sëriñ bi daal association bii di tax ñu sos ko mooy association chauffeur la waaye ànd pour liggéey ànd pour defar ànd pour gën a dimbale métier chauffeur moo tax ñu ne duñ def dara lu dul dañuy ñëw présente la suñu bopp présente la suñ liggéey fépp foo xamante ni nag association war na faa jaar baam ay kayit yu valable yàlla def na dimbale nañu jaar nañ fa ba ay kayit am na ñuy récépissé am nañ ay kayit valable yoo xamante ni euh, di jë ut nañ ko ba am ko moo tax ñu ne balaa ñu def dara dañuy ñëw yaay suñ papa yaay suñ sëriñ yaay suñ lépp ñu ñëw présenter la suñu association bi nga xam ne ay doomi dëkk bi rek lañ di ay magu chauffeur mboolem chauffeur boo xamante ni yaa ngi ci fii ci dëkk bi nekkoon ci kër marab yi bokk nga ci association bi ay ndaw nag jël ko nga xamante ni doole yi si ñoom la des ñu jël ko pour gën a ñoŋal association bi motax ñu ne dinañ ñëw tey ci sa kanam présenter la suñu bop sakku sa ñaan sakku sa ndigal ba nga xamanteni lepp lu ñuy def rek dañ koy defé ci kaw ndigal mo nek ci garage Nioro di nawlep président ba nga xamanteni mo fa nek nekk fa ñaar fukiat di xëccoog mom garage bobu te doomi dëkk bi la way juróom doomi dëkk bi la ko kit ñu bëgg ko jappalé ci anam bo xamanteni anamu ndigal lañ koy amé ba nga xamanteni bu amé fofu garage Nioro mu garage Nioro sin salum la buñ ko amee dana bokk ci li nga xamante ni danañu dimbale trop. kum wa rahmatullah sëriñ bi ñu ngi lay ziara di ziara sa maqama di la ñaanal yàlla comme ni ko as waxee nga yàgg fi lool ànd ak wér yàgg ñoo jiite wax dëgg yàlla solo jotaay bii nii lépp ci say kàddu la balee ndax yow sa kàddu yépp mooy jeunesse bi gëm seen bopp jeunesse bi xam ñoom liñ am ba mën koo doxal loolu bokk na ci ñun tey ñu daje comme ni ko As waxee euh, association le chauffeur de Medina Baye mbooleem chauffeur yi nga xam ne ñu ngi doon dawalal kilifa yi nga xamante ne ñu ngi dëkkee Medina tey ñu ngi ci biir association bi am na ci ñoo xam ne dem nañ ba nekk mag mënatuñoo dawal waaye ñu ngi ànd ak association bi association bi tamit mu ngi ànd ak ñoom pour pare leen a jàppale ndax ku nekk xam na ne mag bu demee ba mag am na loo xamante ni dootu ko man point yi nga xamante ni nag ci lañ bëgg a wax euh, gàmmu Medina Baye mu ngi jublu si euh, nga xam ne tey fu nekk safoor sang fiy jóge ko di ñëw international di ñëw ci dëkk bi association bi tamit pare pour ànd ak safoor soosu noonu dimbale leen ci mal gaare boo xamante ni tey ñu ngi koy gaare bëgg nañ leen dimbale ba nga xamante ni dinañ gaare feneen fu dul ci biir dëkk bi pour dëkk bi mën a xaf pour nga xamante ni tey nit ñi danañ mën a dox ak seen tànk dem fu ñu bëgg a dem association bi mu ngi pare pour jàppalanteeg euh, loolu ci chauffeur yi nga xamante ni ñu ngi ñëw beneen point bi tamit bëgg nañ bu ñu leen utalee barab boo xamante ni fa la ñuy gaare association bi tamit bëgg naa jàppaleeg ñoom ndax am na ci chauffeur yoo xam ne dañuy ñëw bu ñëwee dañuy sonn ci wàllu lekk ak naan ndax xamuñu fi. te loolu yëpp safoor mooy dimbale moromu safooram bëgg nañ tamit euh, dimbale leen ñoom ba nga xamante ni suñ ñëwee wàllu lekk ak naan dana nekk ñun suñ chargé ñu chargé ko di leen ko dimbalee ba kere ñuy delluwaat beneen bi des tamit bëgg nañ mbooleem luy set setal ci dëkk bi association bi jug na comme ni ko As waxee nekk soldaaru dëkk bi ginnaam ay safoor lañ waaye ñu nekk soldaaru dëkk bi pour liggéey lu jëm ci dëkk bi ci ay set setal ak loo xamante ni tey dafa jëm ci dëkk bi mu nekk loo xamante ni safoor moo ko war a taxawee. am nañ tamit ay carte membre yoo xamante ni ñu ngi war a jokkoog euh, ansaaru diin mu nekk ay carte yoo xamante ni tey képp ku ko yor rek nekk safoor ci dëkk bi am nga ak si dugal sa oto ci biir dëkk bi ak ji ba ba ngay jénnee dem gaara ji ko loolu buñ jokkoo ku sëñ Mouhamina danañ ci waxtaan ak moom comme ni ko As waxee wax ji mattu guddal ndax As wax na lépp waaye li ñuy wax rek mooy comme niñ ko waxee li ñuy tënk rek mooy association bi loolu rek moo ko tax a jóg liggéey nekk soldaaru pays bi ak nekk nit koo xamante nekk mbooloo moo xamante ni dañuy jàppale pays bi ñu ngi doog a jénn nag tey ñëw ci soroon di sàkku nga ñaanal ñu yàlla di sàkku tamit nga ñaax ñu di sàkku tamit nga digal ñu ndax euh, am na loo xamante ni soo ko waxee danañu jëriñ ñu ngi sàkku tamit nga waxal ñu lu ñuy jëriñ am nañ tamit euh, kenn ci association bi nga xam ne tey ni ko as waxee euh, mu ngi fii la juddoo nekk Medina yaroo fi màggee fi jàngee oto garas Nioro ba am ay oto boppam di dawal tey président ba fa nekk am na fa ñaar fukki at jiite leen manda mu ngi waaja jeex am na ku nekk ci association bi dafa def kandida pour opposer président boobu noonu pour jël garage bi mu nekk ci loxo Sine Saloum su ko defee ñu mën a ñoŋal liggéey boobu noonu ndax vingt ans yor na ko te liggéeyu fa loo xamante ni nit mën na cee teg bët ndax garage Dakar tey ci garage Nioro la jugee ko boo demee am nañ juróom-ñeenti oto yoo xamante ni ñoo ko moomal seen bopp muy daw seen kees ga ci li ma mujj a xam 14 million mu nga fa mais garage Nioro bi nga xam ne gaz Dakar ci la jugee ko benn dërëm boo xam ne waa ji teewal na ko seen kanam ne lii moom la gaz Nioro am amu ko kon nag tey am na doomu dëkk bi doomu pays bi juddoo fi yaroo fi moo jug pour opposer président boobu noonu pour jëlee ko pour téye garage bi ñu ngi lay nuyu sëriñ bi bu baax di ziara sa maqaama di ziara baay ci yow di la yàlla nga yàgg fi lool te ànd ak wér yàgg jiite wasalaamaaleykum wa rahmatullah koy présenté lañ boo xamante ni ñu ngi foofu lañ jàngee oto et bu ñu jógee ci daal ji ba léegi yaakaar naa jaaruñ ci benn métier lu dul oto ki nga xam na nii moo jiite garage bi muy Pam Ndour ñu koy jox garage bi ñu ngi fa woon di jàng oto nekk ay xale yor na garage bi ñaar fukki at jàpp na daal ne moomeelam la ba tax na dafay wax ne moom su bëggoon ñu voté euh, mbuus yi naaw sax moom la ñuy voté ngir ne moom téye na autorité wala am na dogal boo xamante ni moom daal am na ko ci dëkk yi boo xamante ni ñun amuñ ko ñun nag amuñ dara amuñ kenn ku dul sëriñ bi si mooy ndax moo suñ bund ci baay te ñun bàyyi lañu yaakaar moom la ñuy nokkee balaa ñuy def benn réaction nag ànd ne nag euh, groupe chauffeur de Medina Baye ñu présenté ko suñu liggéey bi nga xamante ni moom lañ bëgg a liggéey ci dëkk bi présenté waale ko candidat bi muy man mii di ñaan sëriñ bi moom bi nga xamante ni mooy xaadimul uma te ñun ci umma bi lañ bokk ñu ñëw joytu ko suñ soxla pour mu dimbali ñu ci te xam nañ ne su ci waxee incha allahu taala liñ bëgg danañ ko am. bi yëpp mooy élection yi ñu teg ko ci règlement muy dëgg ak yoon comme moom dafay jaane moom mbir yi nam ku nu mu ko bëggee lay amee ñun tamit ñu ngi weddi ne ni mu ko bëggee du amee noonu yoon lay amee loolu daal ñu ngi koy sàkku sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu ngi lay ziyaara di ñaanal fan lu gudd ak wér ceeb seen yi nga am ci diina yëpp yàlla yàlla matériel la ko ci dund bu gudd a gudd a gudd di jaay nabi sallallahu bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. maa ngi kontaan ci toog ak yéen maa ngi békkee itam ci ne gis naa génération dëkk bu ndaw bi seen xel a ngi xalaat jëm ci seen dëkk loolu déjà dooleeku la ndax ay xale buñ xalaatee jëmee ci dara rek moo yàlla mooy bëgg a dund mooy bëgg yëkkati loolu ndax lu nekk ci loxo ay xale lay jaar màgg. nag ci ay xale lay jaar parce que barkeeg yëpp ci xale yi rek day bàyyi ko bu njëkkee jëkkee nag ñun ñëpp ba ànd ne dëkk bi suñ dëkk la ñoo ko moom ñoo ko war a yëkkati eh, ñun ñëpp suñu xel daje ci loolu gis ne loolu dëgg la ñun ñëpp ñu nangu ko dëgg-dëgg loolu alhamdulilah benn paala boo xam ne li ci topp si dafay doon lu positif ah yal leen ci yàlla dimbale eh, surtout ay borom métier yoo xam ne. métier la boo xam ne àddina bi du ci doyal ndax moo amee àddina bi transport kenn mënu koo tàggale ak développement kenn mënu koo tàggale ak développement donc bon liggéey la boo xam ne ci ñiy développé Sénégal dëgg-dëgg ci ñi ci gën a dëgër ci lañ bokk ndax fu gën a solee yéen koy toxal yóbbu ko ba fañ ko soxla loolu ku nekk xam na ne mooy développement dëgg-dëgg économique mooy développement économique dëgg-dëgg Euh, bu fekkee am nañ ci xale yu yem nii yu dëkk Mérina ba pare am seen dogu xam nga di ngeen wax léegi ci euh, ñun dañoo ku ba ëpp bëriwuñu wax ah? dañuy wax rek baax na muñ nañ bañ ah, te dafa am yoo xam ne foo nga ne maa ngi nii ah foo nga ne maa ngi nii ku la wax ku la bëgg a wax nga wax ko ne maa la gën a bari wax eh, affaire parce que wax rek la jëf bi nag bu ñëwee ngeen jëf nag ba xam ne jëf bi itam dina tabax dara def bi mën naa tabax dara seen kàddu bu àndee ak euh, seen dogu ak seen jeunesse ak seen expérience ci métier mi ak xam-xam bi ngeen ko xam dëgg-dëgg kenn mënatu leen cee nax kenn mënatu leen cee nax ndax xam ngeen buntu yëpp dafa des nag ñu organiser ko organisation boo xam ne dafa xaw a mel ni syndicat wala yu mel noonu ba ëllëg autorité bi balaa def dara garage Nioro dina xam ne am nañu taxawee garage Nioro duñ rek def ko fa ñoo xam ne fii lañ war a jaar ñii lañ war a waxat ñii lañ war a déggoot pour liñ bëgg a doxal ci garage bi bu boobaa sax yéen nañ koy bàyyee ah, ñoom dañuy nekk rek ñi nga xam ne ñoo leen di ko ñoo leen di muur waaye liggéey bi ci seen loxo la koy teg loolu bu ngeen bu bu waa mairie na jékkee chauffeur mairie na xale mairie na jékki ba ak si foofu dëgg-dëgg na dooleeku yàlla na ci jëf bu leer ànd euh, ndax nit fu mu àgg rek moo fa àggali boppam ci bëgg-bëggam ci góorgóorloom ci dogoom ci namm-nammam buñ nam buñ amee namm ci suñ dëkk bi ni nii la war a mel parce que dëkk bi dañ fee dañ fee dëkk rek ñun ñun la ko yàlla dëkk waaye daf ñu koo dénk pour ñu garder ko ñu fii ñëw hmm? ndax gis ngeen ne àddina bi fii ñëw yëpp bu ñëwee bëgg nañ comme li nga li nga wax ci sa wax bëgg nañ dëkkuwaay bëgg nañ gis lu dal seen yaram bëgg nañ lu gis lu dal seen xel loolu yëpp nañ ko bëgg te loolu yëpp yéen ko mën a xeex hmm? yéen ko mën a xëy na dañoo yéex am daje bu mel nii pour tëral li nga wax am benn place boo xam ne bu gan ñi ñëwee foofu la ñuy yóbbu seen oto bi mais defe naa à partir d'aujourd'hui gannaaw tey gannaaw waxuma gannaaw tey waaye gannaaw gàmmu gi gannaaw tey dinañ góorgóorlu bu baax a baax waaye gannaaw gàmmu gi dañ jéem a góorlu ñun ak yéen ñoo am benn pakk boo xam ne fu mën mënti nekk fii un hectare yu mel noonu ñu defar ko defar ko ba mel ni garage ba nga xam ne bu nu ñi ñëwee bu oto yi ñëwee rek foofu lañ leen di ah wiré ji ñu leen fa garé ji te yaakaar naa am benn hectare suuf bu nekk fii yàlla mën na ko yombal hmm? ñu defar ko garage boo xam ne fu gan yi oto yi ñëwee fa lañ leen di wiré ji dëgg la loolu dëggu la euh, moo taxoon may xalaat naka la ñuy yàqalee Mérina maa ngi ciy ñaan président bi maa ngi ciy ñaan

te Cheikh Ibrahima dëgg-dëgg njàngaleem yëpp gannaaw jàngal la diine nga xam ko nga nangu ko te loolu alhamdulilah am nañ ko ñun ñëpp nangu nañ diine ci suñu xol ñun ñëpp gëm nañ yonent ci suñu xol ñun ñëpp bëgg nañ lu baax ci suñu xol ñun ñëpp bëgg nañ jaamu yàlla ci suñu xol loolu te te xol mooy yëpp yàlla may nañu ku ñu yar ba loolu yëpp nekk ci suñu xol ñu gëm ko mu nekk ci suñuy jikko mu nekk ci suñuy quotidien ah, julli gi du baax du tardé na yëpp du tardé dafa des nag ñuy liggéey pour addina bi ah dañoo xawoon a wëccandiku tuuti nag bàyyi bàyyi leen ko rek ñu coow rek bay foog na ñoo ko moom eh, ñun tam am nañ ci wàll suñu wàll nañ ko seeti dañ ko seeti dañ koy seete nag ku coow rek ñu coow ku xëccoo rek ñu xëccoo waaw ah, ku wax rek ñu wax ñoo koy jël déedéet yéen ñoo koy jël eh, ainsi eh. bu ko defee wax wax wax wax wax delloo ko bu ko defee nag ñu ngi jëf ñun tamit buñ gisee autorités yi nga xam ne seen soxla war na àgg ci ñoom buñ ko xamee dinañ ko àggali ci ñoom incha allah ñu ngi taxaw ànd ak yéen ci seen gannaaw di leen ñaanal di euh, lii rek laa doon gént un gis mairie nag mu nekk ci discipline te discipline bi yéen rek yéen ko mën xale xale yi rek ñoo ko mën def xale yi rek ñoo ko mën def mérite na ñun ñëpp ko bokk amul ñes amul siise amul keneen ñun ñu fi dëkk ñëpp yàlla ñu ko may ñu ñëpp ñoo fi dëkk man benn place bii laa fi am hmm? am nañu ñoo xam ne amuñ ko ci ñi sant ñes ñi amuñ ci kër jàmbur lañ dëkk donc man dëkk bi ñun ñëpp ko bokk kon nag ñu ñëpp a war a góorgóorlu pour mu nekk dëkk boo xam ne yelloo na lim doon ah ci bàyyi ci àddina bi et tout yëpp mën na ko alhamdulilah rabbil alamin bu yàggul laa jógee Màkka vraiment ñi ngi rafetlu Mérina ak taxawaayam hmm, ci diini ñi ngi rafetlu Mérina ak taxawaayam euh, dëgg la ñoom ci seen bopp wax nañ ma ne d' accord amoon nañ rupture bu jaaroon suñ digganteeg yéen jeex na waaye léegi loolu jeex na réccu nañ ko sax ah léegi lépp loo xam ne Baye amoon na ko fii ci ci pal fal nañ la ko ah yokkal nañ la Cheikh tegal la ci Cheikh di Islam te ñun tegaluñ ko woon donc bon Médina ngi dox mi ngi am barke mi ngi yëkkatiku donc ñun doomu Médina itam dañoo war a fonk suñu dëkk boobu ah kenn gënu ci ay kenn ñun ñëpp ko bokk soo soo su ngeen di liggéeyee fu seen seen bëgg seen fu ngeen bëgg seen climat àgg ci autorité yi loolu maa ngi fi ak keneen ku dul man mën nañ ko àggale waaye nag yéen yéenay liggéey nag ah yéenay liggéey yéenay liggéey ba pare liggéey tam am kilifa aussi lu mel nii di am kilifa tax def ko loolu itam nag continuer di feeñ ci seen yëngatu yëpp ah borom kilifa lañ dañuy dem déglu leen dañuy dem waxtaan ak ñoom bu réeroo ak ñoom ci dara pour bu ëllëgee ñoom tamit buñu réeroo ak yéen ci dara ah. benn waaye laaj naa laaj yëpp day ne ko laaj yëpp day yow tax sa waxtaan yëpp léegi daal dafay laal politique. mu ne taalibe yi politique lañ may laaj laaj yu ma leneen gannaaw politique lañ may laaj nag il faut mu wax ak ñoom ci politique voilà loolu la euh, voilà loolu la nañ dund suñu àddina ñoo ko moom nañ ci dimbalante ñoo moom suñu mbiri na nañ ci góorgóorlu nañ ci dimbalante nañ ko setal nañ ko màggal bon euh, euh, ren xat na waaye bu gàmmu gi passé naa leen jox benn hectare boo xam ne di di di ngeen fa réaliser loolu ngeen bëgg incha allah voilà ngeen jëf jërëjëf Niass sant